waaye d' accord justement léegi dinaa la si tontu ok dinaa la si tontu donc euh, mooy Ardo lu mu wax rek déjà il a tout dit donc euh, Ardo wax na lépp euh, deux fois def nañ ma ko sama boutique daaw reen aussi ñëwaat nañ def ma même chose ma ne lii nag mënatuma toog di ko seetaan parce que am na nu muy demee yéen gisoo leen xamoo leen léegi na am na nu muy demee gis ngeen ko xam ngeen nu mu fa demee léegi donc juste juste yi def si liggéeyam parce que man lu ma mën tooñ nañ ma yóbbu naa ko si yoon euh, déposé naa plainte depuis le 24 bu ñu gën donc ba léegi un mois presque un mois amaguñu lu leer donc euh, xam nga loolu tamit euh, ñu bëri ñu ngi sama ginnaaw di ma laaj affaire bi fu mu toll fu mu toll diire na diire boo xamante ne léegi donc man mi am naa instant avocat avant aw moon avocat sama avocat maître Khouraïssa Ba donc moom mu ngi def liggéeyam Euh, juste affaire yi ñu ngi koy ñaaw ñaawlu mooy lu dal Arona ñun ñëpp la dal en tant que citoyen boo amee lu lay nakari a taxaw di ko xeex jóguñu pour yàq dëkk bi di sànni ay xeer def leneen defuñu ko dañ ñu tooñ yóbbu ko si yoon yoon tamit na def liggéeyam jaarale ko si yoon ñu bañ a. est-ce que yaakaar euh, yoon bi euh, bien sûr am naa si yaakaar parce que yoon bi dafa nekkal fii pour ñun citoyen yoon ñëpp la fi nekkal nekkalul autorité wala nekkalul baadoola bi fee pour ñun ñëpp la. pour ñun ñëpp pour baadoola bi ko keneen ki am naa si yaakaar 100 pour cent parce que man tooñu ma daw ma luñ ma def laa génn wax gis ngeen ko sama tànk lañu yàq daaw matrak lañ si teg nooy demee si boutique di jël xaalis nga yóbbu ay arme jaayu ma yamba jaayu ma naga sudul noonu légal laa jaay vraiment loolu tamit war nañ si mën a wax quoi donc parce que loolu laa ma lu ma si wax métti na ma jóguñu pour yàq dëkk bi dañuy jóg pour jaarale la ñu woote donc si yoon lañ leen wuy ñun tamit en fait waaw lu ma voilà voilà loolu ma misaal euh, lu la si jaaxal daanaka noonu la ma jaaxalee fu mu toll depuis le 24 ba léegi bu ñu génnee nii le le 19 euh, le di le 19 19 lañ ñëwoon foofu mercredi lañ ñëwoon si man ñu xuloo ba léegi le 24 la amoon 3 jours maa ngi jaabante pour déposer plainte Dakar waxuma la région Dakar 3 jours pour déposer plainte si biir Dakar amagoo ku la koy jëlal mais loolu rek musiba la en tant que citoyen 3 jours pour déposer une plainte ndax lan ndax dafa am ay autorités dedans une policier benn ASP loolu kese. non donc c'est euh, loolu moom vraiment euh, man bu ma koy wax sax sama xol mënu ma ko yëgale quoi bu amaatul beneen question mu ngi doon at. Euh, waaw waaw juste noonu la fa demee. demoon naa wuy deux fois lañ ma ñëloon jëw si même jour deux fois lañ ñu indiwoon convocation boo ma demee après dafa ne woon ma ne ma ne lu tax nga woo ma deux fois genre yi demee noonu man maa lay bu si yoon waroo leen ma convoqué mu ne dañoo bëggoon def. ngeen waxtaan ak gars yi ñëwoon nañ fii waa mairie bi pour ngeen ma laaj la lan moo xew ñu wax la nga wax ma ne d'accord man toog expliqué waa ji ma ne nii la fa demee ma bind PV bi après bu mu ko bindee bon ma demande ñu ne ma léegi enquête bi ñoom ñoo koy def ba léegi na maa ngi si ñëpp ñu ngi si ñu bari tamit euh, sama mbokk boutique yi association yi ma lancé leen benn appel euh, li ñu bëgg def noonu li ngeen bëgg def noonu àndaguma si pour tëj boutique yi 3 jours ñu ngi ma koy demandé pour 3 jours ñu tëj boutique ma xalaat baadoole yi ñun baadoole yi ñoo siy sonn rek du question man tooñ nañ ma gaañ nañ ma euh, waruma taxaw tamit di di di toroxal yeneen yeneen citoyen ak yeneen yeneen nit fi nekk si biir Dakar loolu tam monsieur wala yindi ma ne léegi gannaaw yóbbu na seen liggéey donc am naa si donc daal mën nañu mu ngi si loxo yoon depuis le 24. depuis le 24 demoon naa déposé aw moon avocat mais euh, donc suñu assili si jëlee nañ ma avocat mooy ñoom Mollah Morgun euh, ñoom a fayal avocat donc. bii mooy deuxième fois bi première fois bi kañ la woon. loolu daaw la woon ah 2018 2018 ah 2019. waaw 2019. non sama boutique la ñu fekk ñëw laajte patente euh, jour boobu tamit ma génnee lu ma ma jox leen waa ji nee na noonu du ko jël après mu tëj boutique bi dese amoon si biir. Euh, bëgg a sàcc mooy li ngeen gis noonu jot ngeen ko gis taaw ma ko dama ko yóbbu si yoon mu ne aw ma si moom dama lay fekk foofu jaar fa bon mënu ma ko nettali fii donc bi du ma bàyyi mu sedd ma toog di jaabante di jaabante ko faj un mois après finalement ñu bindal ma naa toog noppalu mënatuma liggéey ma toog un mois liggéeyu loolu photo yi après dinaa leen ko woon bu ñu bare fi ngeen gis ko am na ñu ko gis am na ñu ko gisagul donc mu ngi noonu looloo passé woon daaw daaw après mujjul fenn en fait. est-ce que waaw waaw am na ñu bëri ñu di réclamer comme ça carte de boutique les commerçants parce que dañ leen war a respecté ñu ñu ngi leen di fayloo impôt loo xamante ne duñu am récit te loolu noonu xaalis boobu noonu du dugg si état. te man lu combat bu ñu nekkee nii mooy aar mooy man suñu combat pour ñëpp xaalis boobu pour ñu ta joxuñu leen sans récit dañu bëgg xaalis bi dem lu fa de trésor niveau de mairie mu yegg si légal yoo xam da ngay am ay kayit yi leer nañ en plus que lu ma mën a wax gars rek bu ñuy ñëw di laajte nañ ko teg si yoon respect xool ngeen nu mu koy waxee noonu en tant que quelqu'un koo xamante ne moom jaar na si ay formation nekkul nit koo xamante ne n'importe quel nit boo ñëwee da nga war a ñëw si donc loolu la am lu may wax en fait na trop ah ñëpp la métti du man gis naa tamit seen taxawaay yéen ñëpp ah bon di si naan euh, merci beaucoup rek